من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu ngi ci téere bi ñu nekkoon muy xilaasu dahab fi siirati xayri al arab ci faslu assaabi muy juróom-ñaareelu faslu bi sëriñ bi di ci waxtaane fi zikri wafaati ummihi wa jaddihi abdilmutalib wa wilayati abi talibin tarbiyatah baada wafaati jaddihi wa ma yataallaqu bi dalik bunte bi tey mu ngi bëgg a waxtaane aminatu mi nga xam ne moom la yonent yàlla muhammad dese ci ay wëyjur ak faatoom moom it dafa maamam ji nga xam ne mooy Abdul Muttalib ñu yóbbuloon ko ko mu jur baayam moom it dafa faatu Abdul Muttalib nag laata muy faatu mu dénk yonent yàlla Muhammad doom bu góor bu baax boobu muy Abi Talib di Abdu Manafin mu dénk ko yonent bi nekk du alala sax waaye xam naa ne am nga xolu yërmande te sama doom ji dama ko fonk kooku yor ko ba mu war a takk soxna ak yi ci aju kon daal bunt bi tey mu ngi dale ci ñeenteelu at bu yonent yàlla Muhammad ba ba muy am vingt cinq ans hmm. loolu nag moo tudd jeunesse hmm. li ëpp ci dundam ci jeunesse am foofu la ko jaare euh, bunte bi dinañ ci xame nag ne yonent yàlla Muhammad ñëwul woon kon ci àdduna pour noppalu hmm. ndax xale boo xam ne ni xàmmeegul mu am dëj yu toll nii dëgg dëgg tiis na mettit na mm. metti na moo téere yi ne boo bëggee muñ sa nattu rekk xool ko ci yonent bi booy jàmbat bàyyi bu dee yow gis nga sa papa te moom gisu ko booy jàmbat yaay ju dee dem nga ba ba nekk mag ci kanamam te moom gisu ko mm. gisul maamam wala miinu miinu ko mm. nga xam ne kon luy dal nattu ci nit rekk yàlla ci yonent bi lëkk njëkke ngir bëgg ku mu dali ëllëg nga am loo ko muñe sëriñ bi ne wa ama arbaatin aw sittatin halakat ummu nabiyi bi abwaa awi zuhami fi daari raiatin qabran laha dakara alqaamuusu fiiha bi aynin gayri munaajimi mu ne wa halakat faatuna wa halakat alkuna ñun ci wolof boo ne diw alkuna dañuy foog ne da nga ñàkk kersa te fekk alku bu ko arab waxee ku mag rek lañ koy wax kilifa gu mag ñu ne alku na mooy faatu kan moo alku mu ne ummu nabi yaayu yont yàlla muhammad bi amina mu ngi ame nag ama arbaatin atum ñeenteelam bi mu amee quatre ans yenn borom xam-xam yi ne déedéet bi muy am quatre ans mu ngi ci xalimatu saadiya d'ailleurs biñ koy indi cinq la am aw ñenn ñi ne kon sittatin juróom-benneelu at la te booboo gën a wér loolu nag mu ngi ame bi abwa in ci awi zuxumi wala barab bu ñu wax ñu ne waaw abwa ba nekk ci madinatu munawwara amina lan la fay def ba war fa faatoo sëriñ bi ne bi yonent bi ñëwee te xalima ñibbi mu nekk ak moom ab diir dane comme kii baayam dundatul naa ko yóbbu ci ay bokki baayam fële ci abwa maanaam madinatu munawwara a ga mu demoon ndekete loolu yëpp coobare yàlla la ndax madina googu moo ko war a yilif ji hmm. naa ko fa yóbbu wanale ko mbokki baayam pour ëllëg bis bu màggee xam ne ñii la bokkal ndax néegu ndeyu abdul muttalib yasrib la mu yóbbu ko nag moom amina ànd ak ummu aymana ak moom Abdou Moutalib nag nekk na góor góor lu baax bàyyi xel sama doom bii ngay àndal Amina nag dem ci yoon wi <clears throat> xam nga voyage bu toll noonu ci température bu toll noonu ci jigéen amul kàttan mu jële ci tooy nag moom Amina ba mu àggee daal ba yesri ba nuyoon yonent bi nuyoon ceeg ay bokkam mu am fa ñaari weer ba ñett mu tàggook ñoom nag doon ñibbisi bi mu ñëwee ba ci digg yoon bi Amina mënatul a dem tànkay diis yaram bi diis mu dal ci benn kër këru ku ñuy wax Raia tëdd fa nag pour bu wéree mën a continuer ndekete ci la ko yàlla na a jël yeneen bi nee ma gis sama yaay muy tëdd di mu tëdd may focc kawam boobu juróomi at juróom benn la am di focc kawam ba yàgg ma gis ko muy wax ndekete boobu da doon wax ne wa inni mayitatun man amina xam naa ne damay dee waaye wa zikri sama tur baaxin dina des ba yowmal qiyaamati te wax na dëgg ñu ngi nii di ko tudd waaye nag laqad walattu xayran jur naa lu baax wa taraktu tuhran bàyyi naa fi lu sell ci àdduna xam naa ne dinaa dee waaye sama tur dana des ci àdduna ba tey muy raay nag yonent bi di ko raay ba yàgg oolu ay aymana muy jàmbu jigéen bi mu àndaloon ne ko dénk naa la sama doom ji na ko yóbbul abdul muttalib xam naa ne du ma mën a demati mag kooku di jooy ne ko bàyyi li ngay wax bàyyi li ngay wax ba yàgg amina ne lax yëngatootul yonent bi di tëb ci kawam di dal di tëb di dal di tëb di dal moom xamul ne yaayam dee na ummu aymana wax ak boroom kër gi ne ko soxna si de noppalu na yonent bi dafa jekki-jekki seen ñu jël yaayam gas pax ba mu xóot di ko ci dugal mu naan génne leen sama yaay génn leen sama yaay temaat ba ci bàmmeel bi naan kaan yaay jugal ñu dem jugal ñu dem xamul ne yaayam dee hmm. lu metti lii la yàlla nattoo yontu yàlla muhammad loolu mu ngi xewe fii daari raaiatin ci kër góor gu ñuy wax raaia zakara tudd na sax alqaamuusu téere bu ñuy wax qaamuusu xabran lahaa ne fa la bàmmeelam ne raia nag fiha bi aynin da nga koy bindee ayn raiatin xayri munu ajimi te kenn du ko tomb waaw amina lan moo ko yóbbu madina googu ba mu deewee ci àll boobu sidi xaj maa ne kaanat nekkoon na du doon namm zairatan seeti ji ilal axwaali ci ay nijaayu abdallah ñoom la bëggoon a seeti pour wane leen ak doom ji bu fil iyaa bi ci ñibbisi bi nag ñibbisi gi kon def na visite bi bay ñibbisi fi iyaa bi ci ñibbisi gi alqadaa dogalu yàlla atin aji dikk la min alxakam yi jóge ci borom bi subhanahu wa taala mu faatu sëriñ bi indi fi benn masala bu am solo yonent yàlla muhammad bi nga xam ne moo gën ci lu yàlla bind moom neena na wa fa wallahi laa yuminu bii min ummati laa yahudiyun wala nasraniyun laa yasmau bii min ummati yahudiyun wala nasraniyun summa lam yumin bii bii illaa xarama allahu jasadahu min annaar illaa adxalahu llahu naar yonent bi nee na maa ngi giñ ci màggu yàlla ne képp ku dégg sama tur ci sama xeet moo xam yahud nga moo xam chrétien nga te gëmoo ma na nga xam ne lu mu metti metti safara nga jëm ndax amu ci mel na moom moo caabi àjjana kon kuy dugg àjjana ci moom nga koy mën a amee waaw loolu bu dee noonu la demee ku ko gëmul doo dem àjjana waaw abdullah bi ko jur fekkewul dundam amina mi ko jur fekkewul risaalaam ñooñu luy luy xew ci ñoom boroom xam-xam yi ne déedéet dafa am lu yàlla def benn bés dafa tëdd di mettit lu li tax pàppam ak yaayam fekkewul lislaam moom yonent bi yàlla jox ko ndigal mu dem ci seen ñaari bàmmeel ñaanal leen ñu jub dekki mu tuubloo leen ñoom ñu wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah muy bànneexu ñu deewaat donte am nañu weddi xadis boobu ne wérul waaye ala kulli xaalin imaamu abdurahman asuyuti yi moom dëggal na ko ndax nee na gannaaw yonte yàlla Isa moo fekk ku dee mu jug loola ci kàttanu yàlla te Isa ñu ngi ko bind ci barke yonente bi Mm-hmm. yow kon bu la loolu yéem mm-hmm. moo tax sëriñ bi ne xaka suyuti yu ibnu suyu euh, abdourahmanu suyuti yi misra moom nettali na lan la nettali naali naylal maadinay ni amuk ñaari mbell yi muy ñaari source yi jur yonent bi am gu ñu am najaatan ak mucc ci safara mm-hmm. ndax gëm guñ gëm yonent yàlla muhammad bul weddi nag bul weddi góor gi nee na alaaj maa ngi nee laa tuxil bul jombal xawlahu waxam jooju bu ko jombal de hmm. ndax wallahu yàlla zu karam yi borom teraanga la te mooy maye hmm. te na nga xam ne li anna rabbaka sa borom maa muttasifun melokaanoowul bil ajzi ci télé yàlla téléwul dara dara kon dekkal abdallah ak amina ñu gëm yonent yàlla muhammad loolu yéemewul te wasaa dekkal ku dee axafu moo gën a yomb ci yàlla minin sha in ci sos ka minal adami ci ñàkk fekk ku masta am nga bind ko amal ko moo fekk ku dee ba fënax nga dekkal ko bu gën a yomb xam nga kële wax dëgg yàlla xam nga oto réparé ko mu gën a yomb defar oto kon ñoom gëm nañu yàlla yàlla tas ñu seen barke bi dëj bi paase nag ummu ayman gàddu yent yàlla muhammad nag teg ko ci gëléem ñëw màkk ba mu ñëwee dem ci abdul muttalib abdul muttalib nekk ana amina mu ne faatu na jooy mu jël doomam taf ko nag ci dënnam xam ne tey kii la de moom la dese mu yent yàlla muhammad hmm. moo tax yonent bi daan na wax ne ummu aymana ummi baada ay ummu aymana mooy sama yaay gannaaw sama yaay ndax bi mu gisatul yaayam ummu aymana la taxaw moom nag waxtu yàlla taxaw na ko ndax nettali naa la ne moom bokk na ci ñi kat bi mu deewee xam nga kon kooku yaayam jooju yàgg na ak moom sëriñ bi ne wa ummu ay mana xadis boobu le cheikh xaj malik tudd tey wa ummu ay mana ummu ay man baadal ummi gannaaw faatu yaayam taxmiluhu nag moo ko gàddu ci géléem li jaddihi ba yóbbu ko ci maamam kan chebatalhamdulillah wax shaybata borom bi jaaw bu ñu gërëm bi ar rida di ku ñu gërëm ki al azim di ku màgg ki muy l'homme fort bu mag moo doon abdul muttalib abdul muttalib nag seetlu nañ ci moom bëgg gi mu bëgg doomam ji yemalew ko kenn te am na ay doom yu góor ndax moo ñaanoon yàlla fukki doom doom yu góor yépp ku ci dul abdallah mu ngi dund hmm. waaye daal moom bu bëccëg masaana jot day wax ñu lalal ko benn moket bu mag ci keru kaaba gi buñ ko ko lalalee tegal ko ci ay ndës ak ay ngegenaay yu baax moom nag ci lay toog farankulaayu waaye doom yi kenn du am fitu toog ci moquette boobu ndax màggal góor gi ak daraja ji mu am ñoom ñëpp a côté la ñuy toog à distance waaye yonent yàlla Muhammad bu masaana ñëw day romb baayam yëpp ñëw ba ci maamam toog ci wet bi bu ko defee bàyyi di xëccëg mbuum mi naan kaan kaay toog fii kaay toog fii Abdul Muttalib naan da'u ibni bàyyi leen sama doom bàyyi leen sama doom fa inna bihi la sha'nan na ngeen xam ne kii bokkul ak yéen mbira ne ci moom te amagul fukki at kat xam nga loolu mën naa bañ neex yenn yenn yenn bàyyi ndax ñoom bàyyi rek sañ ñoo toog ci tooguwaayu góor gi waxatu maanaam moom hmm. Abdou Moutalib bëggoon ko lool lool lool ndax génte gu ga mu gisoon hmm. euh, ak lii war a xewaat ci kanam léegi nag hmm. yokkaat na tax yamalew ko nit sëriñ bi ne biñ ko indee six ans yaayam ci la ci ca sa mu am sept ans am na lu ko dal lan moo ko dal feebar bu méttee matti métti bu ñuy wax wànnant boroomi bët nag danay faral di wànnant bu wànnantee dina metti lool Abdou Moutalib fu mu xam kuy faj dem na fa pour faj ko mais day mel ni dafa yokku di ko def ba tiit nag jaaxle ci doomam jooju nga xam ne bëggul ku dul moom ñu wax ko ne labbe sàngam de mooy ñi nekk ci sër yi euh, église yi di fajaate ku mën a faj la mu dem ko waxtaan ak moom ne ko sama doom ji dafa feebar doom jan mu ñëw wan ko ko mu xool ko waa ji naka la ko xool yaram bi commencé ndaw mu dugg ci biir néeg bi néegam ubbi benn téere ndekete ci tawraat yàlla bàyyi yeneen ci bi dara dara ci melokaan buñ ko war a xàmmewee kii nag bi mu ko gisee noo tudd mu ne ko Muhammad te kooku Muhammad lay tudd mooy faaraq la ci ñoom mooy koo xam day sant rek fu mu toll day sant mu xool di xool ay kiyom mu collaboré ak li mu xamoon moom ci téere yi ba mu demee ba xam ne kii la mu oolu Abdul Muttalib nekk xam nga lu ma lay yëgal yàlla bindul ku mën a faj kii ci àdduna kii yàlla dafa jël médicament am def ko ci moom maanaam moom ci jëmmam li koy faj ci jëmmam la ne hmm. mu ne ko luy loolu mu ne ko kaay ma jox la misaal jël lu mel ni kuddu ne mu Muhammad tuflil mu tufli ci mu jël tuflit boobu raatale ko ci bët yi mel ni ku ko tusngal bët ba weex tàll mu jëlaat beneen tuflit kuddu ne ko waat tuflil mu tufliwaat mu defaat beneen bët bi mu weex tàll mu ne Abdul Muttalib lii laa lay wax kii ku ko yàlla bind ku ko mën a faj moo amul moom ci boppam mooy faj docteur yi moom sallallahu alayhi wa mooy tabibul atiba Abdul Muttalib jommi booleeg la mu xamoon nag xanaa kon bu doon dutewu léegi am na lu ko leer moo tax sëriñ bi ne fii saabiil aam yi ci juróom ñaareelu atam wal haadi yent yàlla muhammad ataahu bihi dikkal na ko ramadun wànnante xayaalahu maa ko yërëm lan moo tax nga koy yërëm yow Seydi Hadj Malick mu ne min shiddatil alami ay fii shiddatil alami ci taruk mettit ndax bët yi dafa rëy moo tax wànnante gi metti ci moom góor gi dafa toog di ko xool mu ne déedéet hudi jubale na ko ilaa rahibin ci labbe boo xam ne tabbin docteur la encore yaqulu lahu labbe bi nag moo ko wax ne ko noppalal sa bopp dawaa uhu médicament riquhu mooy ay tuflitam mu def ko mu weextal mu ne ko nag bu ko fi parce que am na ñu koy wër lii ma xam ci moom buñ ko xamee ci moom dañ koy rey kon farja dellul waat ilal xaram ci màkkatal mukarram dellul ak moom Abdul Mutalib wara waraat ak moom gëléemam dellu loolu mu ngi xew ci septième année bi boobu yonent bi juróom-ñaari at la am sëriñ bi ne jàngaloon nañ fii ne Zunawas fële ci yaman moo doon buur euh, dafa duut boo xam ne lakk na ci ay nit vingt mille personnes dee ca hmm. aw sudu saalabaan daw dem ci Qaysar Rome doon ko fa kalaame ñooñu ne ko foofu dafa sori waaye dinañ la yebal ci Addis Abeba muy Éthiopie hmm. mu dem fa wax ak Najaasi yi mu jox ko armée bu rëy ñooñu xeex ak zu nawaas muy Aryab bare ko mu dugg ci ndox mi waaw léegi nag waa xabasa yilif foofu Aryab Abraha rey ko bi mu ko reyee ñàkk lu may def ne moom day màbbi ci kaaba ga jotul yegg nguuruk yaman googu nag waa xabasa donn nekk fa di buur di bummi moo metti góor gu ñuy wax Sayf ibn Zi Yazan moom sëtu euh, boroom dëkk bi la zu nawaas moomu dee ca ndox ma maamam la hmm. wala muy bàyyi ci moom moom nag moo toog ak famille bi li des ci euh, euh, prince yi neleen waa ñun dañuy toog nii rek yaman nii léegi ba euh, Éthiopie moom daal dëkk bi nii rek ñu toog di xoole hmm. ñoom ba téye moo njaay la seen waa ji dee fële ca Makka ne dafa doon mabbi ji ñi ci des jël nguur gi waaye léegi nag ñun duñu xeex ak ñoom ñooñu nekk ñun amuñu doole mu ne nag dinaa uti doole euh, ànd ak délégation dem Rome fële ci Rome yi ca Sàm muy Damas gis Qaysar wax ak moom Qaysar xam nga ne wax dëgg yàlla du ko du ko dimbali xam nga lu sax Qaysar moo jur ñi coloniser fii di moom moo waxoon Awsu zu Saalaban nekk demal Éthiopie boo demee Éthiopie dinañ la dimbali kon moom nan lay mën a ñëwaatee di di di ko dimbaliwaat hmm. muy wax di laam mais ba mu xam ne kii du ko dimbali Sayf ibn Ziyazan am xalaat ne comme ñaari puissance mondiale ñoo fi ne te dem naa ci benn bi mu bañ naa dem ci bi ci des mu dem Iran gannaaw bi mu jaaree ci manazira yi ñu yóbbu ko mu dem ci Faris maliku Faris gis ko mu euh, ñëpp sujootal buur bi Sayf ibn Ziyazan taxaw rek mu mer nag ne waaw kii xanaa dafa dof man ñëpp ak may sujootal moom mu taxaw nii interprète bi wax ko ko mu ne ko nekk jaxle rek moo tax te ko sujootal mu ne ko lan la mu ne ko parce que suñu dëkk dafa am ñu ko coloniser te mënuñu ci ñoom dara ma ñëwoon pour sàkku ndimbal mu dimbali ma ci armée ma mën a xeex ak ñoom lii nag bi mu koy dox yëpp fekk na ci diggante bi yont yàlla Muhammad juddu bi ndax Abraha ba mu deewee da yonent bi juddu hmm. cinquante cinquante jours après diggante boobu nag la def va-et-vient yi mu fi def hmm. euh, ba buur bi nekk comme noonu la mu mujjee convaincre buur bi ñu jël prisonnier ya nekkoon ca prison ba boolekaak moom nekk léegi dem leen ngeen xeexi ji yéen prisonniers yi boo leen deewee loolu laa bëggul boo leen boo deewul nag gañe gañe réew ma ngeen toog foofu te bañ ma bañ maa sonalati mu ànd ak prisonniers yi def leen ci ñetti gaal yu mag ñu jéggi dex gi ñëw yaman ba ñëwee yaman éthiopiens yi dégg ne ñii am nañu renfort bu jógee Iran ñu commencé di xeex ak ñoom xeex bu metti fekk Yaksum moo leen jiite woon ak Masruq ñaari doomu ab lañ xeex ba metti loolu ba ñu rey xale yooyu euh, di dem di dem ba Hurmuz mi nga xam ne moom la buur bi yabaloon moo doon chef de commandement bi moo mujj rey Masruq boobu noonu euh, donn nguur gi léegi maintenant waa Iran jël nañu nguur gi moo tax yamanit yi dañuy faral di tooñ Sayf ibn Zi Yazan ne moom convention bi mu signé baaxul parce que dañoo coloniser woon Yaman à travers des Éthiopiens moom mu dem Iran pour ñoom itam ñu dimbali ko si mais booy signé da kay da ngay def convention bu wane ne bés bu ñu gañee may doon président bi bu ko fee yéen ngeen may jàppale mais moom yooyu leeralu fa yooyu yëpp ñooñu itam bi ñu rayee ennemi ñoom ñoo faluwaat ba tey ci colonisation lañ dekkaat ñu ngi décoloniser ci éthiopiens yi ba pare coloniser wu ci iranien yi loo tax yaman ba fii may wax ak yow ci colonisation boobu rek lañu nekk entre euh, euh, euh, iranien yi ak tubaab yi léegi nag loolu bi mu amee bi mu gañee combat boobu Sayf ibn Zi Yazan bi mu com arab yëpp nag dañ kontaan ndax ñan ñoo bëggoon toj kaaba gi muy Abraha ak armem Abraha moom dee na mais armée ba ñu ngi fa desoon hmm. armée ba nag tey la ñuy doog a daw génn dëkk bi arab yëpp nag noyyi waat comme nag Cheybat al-Hamdi mooy kilifa Makka mu wax waa Makka nag nañ def délégation dem Yaman ndokkeele ji góor gi muy Sayf ibn Zi Yazan ci pouvoir bi mu am bi muy dem nag yonent bi judd na fi ba am fi juróom-ñaari at ci diggante bi mu ñeewante bàyyi fi xale bi ndax baayam dundatul loolu la Seydil Hadj Malick di wax ne juróom-ñaareelu at bi wal jaddu maamam di Abdul Muttalib fil aami ci at moomu di bi mu wànnante yamshi ànd naag moom libni zi yëzënin di ndokkeeli ji sayf ibni zi yëzën fële ci yaman lu fay def mu ne li kay yuhanni ahu ngir mu ndokkeel ka fil mulki ci nguur gu bees gi wal imami ak mbir yi te mooy ngañaay gi mu gañe waa Soudan ya fa ñëwoon ba ñëwee moom sayf ibni zi yëzën ñu wax ko ne waa Màkka ñëw nañu mu tiit ndax dafa am secret yu mu dégg ci moom Sayf ibn Zi Yazan nag kàgguy maamam ci biir palais bi daf ko découvrir bi mu ko découvrir fekk na ci benn livre secret boo xam ne Rabi'at ibn Nasr moo ko bindoon di maamaatam ne jamono ngi ñëw dana am yonent boo xam ne mooy donn nguuri àdduna bi yépp Muhammad lay tudd nii la mel nii la mel nii la mel nii la mel sama sët bu fekkee nag dund kooku maa ngi lay ñaan na ko gëm topp ko te na ko teral moom nag bi mu gañee nguur gi ba ñëw ci pale bi gëstu loolu ba gis téere boobu te mentionné nañ ci ne makk lay dëkk mu toogoon nag denc loolu di xaar waa màkk faf nag Abdul Muttalib ñëw mu recevoir waa màkk publiquement pare nag ne Abdul Muttalib yow soxla naa la bi mbooloo mi demee mu tëj Abdul Muttalib nekk yëgu leen doom boo leen am bu mel nii mel nii mel nii wax ay critères yu bari ba Abdul Muttalib yëg ne kii doomam lay wax mu ne ko Abdul Muttalib boo ko jurul sa doom dina ko jur mu ne ko wax nga dëgg at yii de am naa fi doom boo xam ne nii sama doom bu góor a ko jur Muhammad la tudd te mooy tur wi nga wax nii la mel nii la mel nii la mel buur gi kontaan lool ndax loolu maamam bindoon te mu yàgg lool moom mu dem fekk ko mu jël nag teraanga yu dul jeex jox ko Abdul Muttalib ak i jaam ne ko maa la ko terale te at mu jot na fi ñëw ma di la teral malheureusement ca at yooyu moom góor gi ca déwén sa moom moo tax sëriñ bi ne wal jaddu maamam di Abdul Muttalib fil aami ci at mu yem si dox na ànd ak Muhammad libni Ziyazin ci Sayf ibnu Ziyazin ca Yaman li kay yu hënni ka ahu ngir ndokkeel ko fil mulki ci nguur gi wal imami ak mbir yi ba ñu waxtaanee seen biir ba jubboo déggoo ahdaahu may na ko addiyaal na ko jamman alal ju baree baree bare wa basharahu mu bégal ko itam bil mardi yi ci doom ju ñu gërëm buy ñëw ci àdduna war a yilif àdduna maa ngi lay xamal nag man alaaj Maalik ne loolu mu waxoon bi asdaqil qawli mooy wax ji gën a dëggu sidqan ci dëggu xayra muttahamin kenn tuumalu ko Sayf ibn Ziyad la mu waxoon yëpp am na mu ñibbiseeg moom xanaa Abdul Muttalib léegi mu ngi miinal boppam doom ji ñu jekki-jekki même année bi ba tey benn sécheresse bu metti am Makka waa Màkka def délégation ñëw ci moom ne ko Abdou Moutalib fu ñu masaan a jaaxle yow yaay intervenir ba ñàkkee ndox yaa demoon gasal ñu teen bi bi Abraha di ñëw yow lañ demoon nga ñaan tey nag dañoo ñàkk ndox ba kenn jur yaa ngi dee ñu bëggoon daal nga ñaanal ñu sa borom ndax juboon ak yow mu wax ci xelam ne yéen xamu leen ki tax yàlla nangu ñaan bi sama doom ju tedd jii la an jàppal leen bés ne leen nañ dem ci dem baawu naane ji ànd ak nag yonent yàlla Muhammad teg ko ci wetam lu mu ñaan yàlla rek ne yàlla maa ngi lay ñaan ci barke amin Muhammad bii yàlla nag ñu may ndox laata ñu koy jóge ñoom ñëpp tooy moo sëriñ bi ne wal kamarada ni ki mu xëyee fii ci at moomu di septième année bi ba tey yastasqi di sàkkoo baawu naan waaye moom demul rek de musaaxibahu mbir mu muy ànd ak yonent yàlla Muhammad min ajli ru'ya ngir jëmmu gént gi nga xam ne géntoon na ko te muy garab googu nga xam ne nii moo war a matal àdduna waaye bañ toogee di ñaan ñu ne alaaj maay ndax taw na mu ne taxawul sax wa rabbi sama borom waahibul yutumi may na leen ndox mu bare bare bari ci ay xéewal euh, ca déwén sa nag kon septième année bi yii yëpp xew na fi septième année bi euh, wànnante na fi ba dem faju ji ànd na fekk maamam <clears throat> ci Sayf Ziyazan ñetteelu mbir mi mooy am nañ fi baawu mu ñaan yàlla ci barkeem ñu am taw bu bari ca déwén sa nag muy amas samaan yi wafaatul jaddi za hanamin wa xaatimin wa anu sharwaana dil karami fihi gadaa li janaabil ammi abdi manaafin min wasiyati jaddin musfiqin rahimi mu ne wa faatul jaddi faatuk maamam boobu nag mu ngi amee ama samaani atum juróom-ñetteel ba huitième année ba oh maam ja faatu waaw xanaa moom lu ko daloon mu ne za xënami nekkoon na di am ci ay at li mu xënam waaye xënam mooy ëkku nepp nepp maanaam demoon na ba dëgër moom guur gi ëkku nepp nepp ni mu dëgëree kuñ ko niralal dëgër nga waaye amoon na xënam muy quatre-vingt-quinze ans hanamin wa xaatimin itam wafaatu wafaatu xaatimin ama samani la xaatim at mooy kooku nga xam ne ku arab di tudd ci tabe yow la koy niraleel xaatim moom la wax ne dafa mas a génne doon tukki war géléemam def ci argent de poche bu bari ànd ak jaamam di dem Euh, ak euh, wan fas fas la war fas wu jigéen wu ànd ak doomam bi muy dem nag ci buntu dëkk bi mu dajeeg benn waay waa ji nekk salaamaaleykum xaatim laa doon laajte ndax ci dëkk bi la dëkk mu nekk ko axakay loola taxoon a jub mu nekk ko dégg naa dañ ma wax ne ma du tas yaakaaru ku ko yaakaar te nag jamono dab na ma bu bëggoon dem ci moom pour wax ka daal mu fajal ma sama soxla góor gi ne ko maay xaatim te li nga wax ne du ma tas yaakaaru ku ma yaakaar wax nga dëgg ne cëpp wàcc fas wi nekk nag fas wi nii man dama doon tukki te fas yéenewu ma delluwaat damay tànku man dem tukki waaye fas wi daal may naa la ko ci xool bu sedd guy eh, teg gi argent de poche mu ngi ci quatre cent mille a ngi ci yu ma lew hmm. mayaale naa la ko jàmm bi di respect ci suuf nan ah ñii dañ gàtt xel trop nan buur aayul dak yaa aay dañ gàtt xel trop nan ngay gisee kuy tukki nga kay ñaan nii góor gi xaatim nag continuer di dox di wax di wax di wax ak jàmm bi déggul ku ko tontu muy wax déggul ku ko tontu muy wax déggul ko tontu ba yàgg mu gestu ndekete ba waa ji jëlee fas wi di dem fas wu ndaw maanaam fas wi fas wu jigéen la dafa am doom hmm. ñu koy wax mool mu doon fippu nag moom mool wu ndaw wi doon toppi yaayam jàmm bi ñàkk lu muy def ne comme gàtt na xel ba jël fas wi ak teg gi ak koppar yi ci ne du ma nangu mukk fas wu ndaw bii di fekke ci yaayam ndax kii pur sang la boo ko yaree di nga am fas wu baax fas wu ndaw bi nag di fekk ji yaayam jàmm bi di ko téye muy fekk yaayam jàmm bi di ko téye ñu nekk ci àll ba naan dar dar dar dar ba nga xam ne poussière bi mu ngi leen wër fu ne xaatim bi mu gëstoo a gis image boobu ne jàmm bi waa lan mu ne ko fas wi fas wu ndaw wi moo bëgg a fekk ji yaayam ma koy téye xaatim waxul ak jàmm kamu may fas wi la ëyu eh eh ba mu wuyu ko mu ne ko xanaa nga fàtte ne jàmm bi ak fas wi mu yor wu ndaw wi ci may gi lañ bokk xaj Ibrahima nag daan na wax ne moom jàmm bi da doon iñaane ñu foofu ko maye moom moom jàmm da doon iñaane fas wi ñu foofu ko maye ndax tabarkalla xaatim boobu nag nga xam ne dafa tabe woon tabe ba ku ñuy tagg dañ laa naan da mel ni xaatim ci tabi mu ngi faatu ci at moomu kii nag ay doomam saxaabi yi lañ adi ibnu xaatim at-ta'i mujj na tuub bokkoon ci ñi nga xam ne chrétien la woon waaye bokk na ci ñi nga xam ne ci mujj dund yonte yàlla muhammad tuub nañu ba liggéey ci lislaam liggéey bu rëy moom at yi juróom-ñetteelu at bi am na keneen ku faatu wa anur charwaana góor gu ñuy wax anur charwaan zil karam yi kii borom teraangay nguur kooku itam faatu na teraangay nguur mooy première bu puissance ku koy yilif am nga teraangay nguur mooy yërifoon moom lañ la wax ci gannaaw ne waxat mabali anu sarwaana qul yalabun bi mu amee quarante deux ans ci nguur gi la yonte yàlla Muhammad gane àdduna huit ans après ca la faatu hmm. maamam kon jirimaat na tey baayam faatu na yaayam faatu na maamam ji mu jëloon te jàppe ko bàyyi faatu na tey nag moom nag jotoon na xàmmee maamam hmm. waaw léegi fu mu jëm mu ne xadaa mujj na fii ci juróom-ñetteelu at boobu bi janaabil am mi ci wàllu bàyyi tëxam muy Abdi Manaaf Abdu Manaaf nag boo ko xamul mooy Abi Taalib mooy jur Aliou waaw moom moo ko tànnal boppam mu ne déedéet min wasiyati jaddin ci dénkaane maamam bi nga xam ne musfiqin da ko soppoon lool rahimi te yërëm ko mm-hmm. Abdou Moutalib moo ne jur naa ay doom kaar waaye nag xolu yërmande mën a yor doom kenn laa ci doyloo te moo di euh, moo di Abi Talib Abdou Manaf na ngeen ma ko joxal mm-hmm. moo tax ñu yóbbu yent yàlla Muhammad à l'âge de huit ci magu baayam moo papam ñoo bokk ndey ak baay muy Abdou Manaf mu yor ko bi mu fa nekkee atum huitième neuf dix onze douze ans quatre ans après hmm. góor gi ne mankat jaboot naa te nag dama bëgg def commerce ni waa Quraysh di defe ndax ma am lu ma leen di dundal ma bëggoon daal bàyyi la fi doom nga dem nga toog ci say frère ak say cousin ma ànd ak sa bàyyi Zubayr dem ba Cham defi ji commerce yéen yàlla Muhammad commencé jooy jooyu métti ne ko papa man xaw ma ku dul yow nga bëgg dem mi bàyyi ma mu ne ko danga nga bëgg a dem mu ne ko dama bëgg a dem kay mu ne ko doom duma la fi bàyyi mukk ngay jooy bëgguma gis mukk say rongoñ war ko ci géléem ànd ak moom dem ci tukki boobu ñu bari ci mag ñi d'accord ñu ci woon ndax mii miinuñu woon xale buy dem ci voyage yu sor yooyu Abu Taalib ne len nay mën a ne ma yebbi mbaa ma yóbbu xale ñoo ñu ne ko nag kon yóbbul moo tax sëriñ bi ne fii xubbi yi ci atu fukk ak ñaaram amuhu bàyyi taxam di Abdu Manaaf xad raaxa ànd naag maahu moom ila chamin dem ba yegga cham pour jëm cham li an balaxa bañ yegga Busra dëkk bu ñuy wax Busra zawil asami ñi ñi boromuk mucc bi ñu dafe demee ba Busra di waaj a dugg Sham am na nag lu fa xew benn labbe boo xam ne église ci àll bi la ko defoon muy Buhayra daan fa jaamu boroomam ba faatu beneen labbe bu mu yar bu ñuy wax Jirsis euh, donn ko wala li ñuy wax Borges Jirsis boobu bi mu ko donnoo à distance dafa séen mbooloo mi di ñëw mu jékki-jékki di lox ne xawma lu xew waaye billaahi mbooloo mais di ñëw ab yonentaa ngi ci ki gën ci lu yàlla bind mu ngi ci kuréel gee di ñëw caravane bee di ñëw hmm. ñu ne ko noo ko xamee mu ne dama gis bi ñuy ñëw gisuma garab walla xeer wala dara lu dul sujjóot na ngir di màggal kooku ku mu romba rek dina ko sujjóotal xam naa moom kas moom it réy na hmm. sëri xaj maay ne lamma raahum ba leen gisee ba xayraa xaama dafa jug taxaw yukrimuhum di leen teral fa ñu fa ñu fa dafa yónni benn xale ne wa nel waa maa leen invité tey añ ñooñu jaaxle ne ñun fii ay at ñun fii romba di def commerce ci kii mosuñu nuyu sax faalew ñu sax ci église bi rek la nekk mu ne daal nee na daal na ñëw togg ceeb togg euh, togg euh, teranga ju bari teranga ju bari waajal leen ko yàlla atte bi ñu agsee muy xool nag leer googu mu séenoon gisu ko di xool di xool gisu ko ba yàgg mu ne xanaa dafa am ku des ci yéen ñu nekk ko déedéet fële kenn desul ba ñëpp ñëw nañu mu ne kenn desul ñu ne ah xanaa xale bu ndaw rek kooku de xale la sax moom lañu bàyyi pour mu xoolal ñu suñuy bagage mu ne leen bi ma leen di woo ñëpp a tax dama ne indi leen ñëpp benn góor jug taxaw ne yéen mag ñi yéen a gàtt xel nan ngeen a ànd xale bàyyi ko fa di ñëw di jël si ay teraang mer dem jëli ko li mu ko jëli jee uuf ko naka la ñëw rek moom ba xayraa commencé di xool yonte yàlla Muhammad di ko xool ba xam ne kii moo taxoon garab yeeg doj yi di sujjóot mu jekki-jekki oolu ko mu wéet ak moom mu ne ko noo tudd mu ne ko Muhammad ku la jur mu ne ko abdullah ku la kuy seyaay muy lim di lim lu mu ko xool lu mu ko wan nag mu xool téeréem mu correspondre rek lim xam hmm. mu dem a dem ba xam ne kii mooy ki mu doon wër mu ne ko koo àndal mu ne ko góor gi abi mu woolu ko mu ñëw mu ne ko kii lu mu doon ceew mu ne ko sama doom la mu ne ko maa yanbaghi li abi haula'i an ya'isha juróo ko kii jaaduwul baayam di dund ba tey hmm. xajoowul ak baayam ci kaw suuf mu ree ne ko wax nga dëgg mag baayam ñoo ko ndey ak baay mu ne ko xam nga lu ma lay yëgal kii mooy gën ci mbindéef de jëlal kii ngeen dellu mu ne ko déedéet dama ñëwoon fii pour def commerce mu ne ko lii ma xam am na ñeneen ñu ko xam di ay yahut ñu ngi fii xam nañ ne day ñëw fii buñ jotee ci moom nag dañ koy rey nga ñàkk doom utal nganta loo jox ñi nga àntal te fexe ànd ak xale bi rawale ka dem ñibbi moom la Seydi Haj Malik wax ne zaway ay sami ñu mucc way mucc lañu lama raahum ba leen gisee ba xayra qaama jug na taxaw yukri mu yukrimuhum di leen teral te loolu du woon aadam ndax wa kaana nekkoon na lay sa yu baal yi daawul faale fii mururihim yi ci seen romb yañ fa daan romb daawu leen faale bi mu leen woowee invité pour teral leen taxal la fa wuutal nañu al albadru weer wi anhum ci ñoom fi rihaalihim ci seeni bagage fa qaala mu ne leen déedéet bi ma leen woo ñëpp a taxoon nag fad'uhu na ngeen ko woo ndax fa taxliifu wuutal gi ngeen ko wuutal ba pare ñëw di jël si teraanga loolu lam yàqu mi rafetul fa qaama ci la jug taxaw minhum ci ñoom fatan benn cam genn góor jug taxaw am na ñu ne xaaris la ibnu abdul muttalib di bàyyi taxam ne leen li ngeen def rafetul fa qaama jug taxaw minhum ci ñoom fatan iyaahu wala muxtadinan muy gàddu iyaahu yon ci yàlla muhammad ñëw ba ci mag ñi wa qailan mu ne leen inna za wuutal gi ngeen wuutal muhammad seeni bagage lu mun coxor la maal xasami ak siis ñi ngeen def jaaduwul sëriñ bi ne lamma raahu ba ko gisee nag ba xayra xaama dafa jug yalxazuhu di ko gendiku di ko xoola ko xoolaat di xool ak xoolaat di xool ay tiirem di ko xool lahzan gendiku shadidan go tara tara tar wa nazaran fi'lu mubalagha la sighatu mubalagha sëriñ bi ne di xool ilal imami ci mbiram lu mu ko laaj mu tontu ko te dane ko inni as'aluka bi haqqil laata maa ngi lay ñaan ci barke laata mu ne ko bul ma tuddale ci loolu bëgguma lool li ma gën a bañ ci àdduna mooy laata ak hubal muy xërëm yooyu kon bul ma giñal ci kool moo ko tey nag ndax xam nga ab dont donte nekkagul yonente waaye du xam ku dul yàlla ndax ci maarifa siddiq euh, maqaamu siddiqiya la yonente di juddoo bi mu ko waxee nag bëgguma dégg laata ci xale bu toll noonu mu xam ne kon la mu jortoon dëgg la wa qaama taxaw moom ba xayra yës ëruhu di nooy nelawee nooy yeewoo looy yëg guddi dinga gént gis nangam dinga nàngam mu koy tontu mm. wal badru yonent yàlla muhammad di weer wi sayyiduna tey suñu sang yu niiru muy leeral tilka dayaa ji lëndëm lëndëm yooyu te xayra mu'tatimi yeexul de lu mu ko wax rek tontu li ñëw mm. ba di di xool di xool question yeeg réponse yi di xool question yeeg réponse yi ba mu demee nag ba am certitude si xaj maa yi neen la maa taxaqaqa ba dëggoo nag maa qad zam na la mu njortoon ne kii mooy ngën ji mbindéef xaala ci la wax gannaaw bi mu oowee li am mi yi bàyyi xam mooy abi abdu manaaf di abi taalib ne xam nga lu ma lay yëgal urdu dan wu dellool xale bi kii du ko war a génne ndax fa ahlul makri borom pexe yi fii himami ñu ngi nekk ci yittee rey ka kon delloo ko hmm. góor gi rawale ko ba mu ñibbisiwaat loolu mooy kon ku la laaj tukki bi yonent yàlla Muhammad njëkk a def neel mooy ba mu amee juróom-ñaari at dem Yaman ànd ak maamam waaye moo itam bi mu amee fukki at ak ñaar ànd ak Abi Talib ndax tukkiwaat na fi mu ne ax ah akay tukkiwaat na fi demaat Yaman wa qul neel Zubayrun bàyyam bu ñuy wax Zubayr ibnu Abdul Muttalib wa abbaasun ak baayam bu ñuy wax abbas ibnu abdul muttalib saara bihi ànd nañook moom tukki ilaa yamanin jëm yaman encore muy rihlatu shitaa'i wa sayfi bi nga xam ne rihlatu sayfi biñ doon euh, shitaa'i biñ doon def ci yaman ñoom baayam yooyu ay commerçant lañu woon loolu kañ la xew mu ne ama jiidin atum loos mais lim la ci jublu mooy bi mu amee dix-sept yonent bi bi mu amee 17 ans kon 5 ans après voyage bële ànd nag baayam yi udda na nga limaale tukki bi wax tekki mi te nga xereñe ko bi mu amee 17 ans demaat na fi yaman dellu si yàlla nag ci xikmaam la ko yóbbu ci dëkk yooyu ndax dëkk yooyu yëpp après moo ko war a yilif moo tax ci jeunesse am fexe na ba yàlla yóbbu ko ci dëkk yooyu foofu la yem mu ne déedéet yonte yàlla Muhammad bi muy am vingt et un ans amoon na histoire bu xew jamono waa Hawazan ak Bani Bakr dañ doon xeex ak Ghatafan waa Hawazan dañ doon xeex ak Afwan waa Makka ñuy xeex ba ahru euh, ashhurul xurum yi dugg waa Hawazan dëgër bopp Saqif dal ci Makka te nag loo xeex xeex yàlla dafa araamal ñeenti weer yoo xam ne araam na xeex ci inna iddata ash-shuhuri inda allahi isna ashara shahran fi kitabillah minha arbaatun xurum yàlla nee na am na ñeenti weer yoo xam ne araam na xeex ci waaye ñoom waa saqif dañ cee songa waa makka ngir caay-caay looloo tax arab yi xeex xeex boo am boo xam ne ci ñeente ñeenti weer yooyu la xew xarbul fujaar lañ koy tuddee mooy xeexu saay-saay juróom nag lañ wax ne moom la masa am ci arab yi juróomi yoon bu mujj ba nag yoon ci yàlla muhammad fekke na ko daan na wax ne kuntu anbulu li amaami fii yawmi fijaar Seydi Haj Maalik nee na xayrul wara ngën ji mbindeef yi shahidun aji fekke la yawmal fijaar yi bésu xare fijaar lahu amoon na ca ixda wa ishruna aman vingt et waaye nag taxul mu daw de laysa mustadami mooy gayndey gott bi mooy gayndey xare moom yonent bi vingt et un la am teewul moom moo doon jox ay fitt ay bàyyi tëxam ñoom ñuy sànni waaye nag moom xeexul wa hakaza naka noonu shahid al hadi yonent yàlla muhammad fekke na ci jeunesse am ash-shafi'u aji rammu ji te di ñu jubal lanaa ñeel ñu fekk na xilful fuduli waatoog fudul lazi bi nga xam ne min ashrafi dimami moo gën a tedd ci convention yi Quraysh mas a signé dafa am benn waa ju jóge Yaman doon ku néew doole euh, doon jaay As ibnu Waa'il doonoon dignitaire ci Makk jël jël marchandise mu di ko fayeku mu ne ko fayuma la boo boo dee yàlla tawal ay xal te kilifa la ci dëkk bi bu doon tey notable la wala ministre la waa ji def def def ku mu dem wax ko kenn du ko faale mu dem taxaw ci montagne ba abu jabalu abu xubaysin yuuxu waa màkk ba ñépp wuyu mu def ay way di wane ne màkk de mu ngi tax sama yaakaar parce que ndekete fii ku fi leb doo fay bor te moom waa yaman la xam nga kii buñ ko bàyyee mu dem day yàq deru Makka te ñëpp lañuy la ñuy aj si mag ñi waxtaan seen biir Zubayru nag ibnu Abdul Muttalib mooy bàyyi tëxu si yàlla Muhammad moo tëb jug taxaw wax ak ay kilifa ne leen lu mel nii war nañ koo combattre ñu def mbooloo dem ci kër Abdullah ibnu Judaan at-Taymi waxtaane fa benn convention moom lañ tuddee xilful fudul mooy bés ni tey du ñu seetaanati ku ñuy néewal doole moo xam mu dëkk ci dëkk bi wala mu ñàkk fi dëkk moo xam mu am fi mbokk wala ñu mu ñàkk fi am mbokk mag ñëpp d'accord ñu def convention signe ñoom ñooñu nag ñoo def groupe ñëw ci Ans ibnu Wail bi yoroon alalu waa yi nekk di nga ko fay wala doo ko fay boo ko fayul tey tey lañ lay rey mu ne ah yéen doxandéem bii ngeen may jënd ñu ne ba ne da ngay fay laa wax tey mu dugg ci néegam fay ba pare yor doxali waa ji génn dem mu ne ah lii mooy mën a am jàmm am convention boobu la Seydi Haj Maalik wax ne yonent bi fekke woon na te boobu ndaw la kat moo tax mu ne wa hakaza naka noonu shahida fekke na alhaadi aji jubal nit ñi ashafiu aji ràmm lanaa ñeel ñu xilful fuduli waatoog fudul lu tax ñu tuddee ko fudul fudul dañu wax ne ñetti la ñoo fa nekkoon ñetti gaay yoo xam ne fadlu lañ tuddoon ñi ñuy wax fàllu fàllu ñetti nit ñoo xam ne fàllu lañ tuddoon pluriel bi mooy fudul ñi ne déedéet fudul mooy firi alal alal joo xam ne daal dañuy con waat ci convention mooy képp ku fi yoral nit alal du ñu nangooti nga lekk alalam bàyyi ko hmm. léegi bi nga xam min ashrafi dimami moo gën a tedd ci convention yi masa am li tax mu tudde ko ashrafu zimam yontu yàlla muhammad bi ko yàlla yónnee ba mu ne Madina ba am doole dafa toog bés di fàttaliku convention boobu ne billahi buñ ma woowaatoon ci l'islam gii ma ne pour ma fekkee convention bu mel noonu dinaa dem fekke ko donte du ñu ay jullit ndax convention signée pour nangu tooñ yi ci ñi tooñ delloo ko seeni boroom loolu soxlawul l'islam foo ko déggee rek muy convention de la paix foo ko déggee rek hmm. bu embrassé wul bu bu sonalul sa diine yonent bi nee na demal bokk ci loolu nag mu ngi xewoon ci kër Abdullah ibnu Jud'aan sëriñ bi ne inna ibna Jad'aana naka Abdullah ibnu Jad'aan kaana nekkoon na alxilfu waato bi manzilahu nekkoon ci këram Abdullah ibnu Jad'aan mii euh, bu ma koy jàng histoire am damay jekk yeeg nekku yaayam liggéeyoon la Abdullah ibnu Jad'an dafa nekk jeune bàyyi la doomu bàyyi la ci Aboubacar Siddiq radiallahu anhu euh, affaire bi xaw a dëgër ci moom lool lu ne nag def na ko pour am xaalis mënu ko am lu mu def ko pour am xaalis mënu ko am mu jaaxle nag benn bés mu désespéré dem ci àll bi di taxawaalu ci treize heures ci bëccëg jékki-jékki séen lu mel ni jaan di dox nag ci kanamam lu mel ni jaan waaye li ko jaaxal mooy jaan am na melokaan yu mu war a mel mais kii moom dafa gis ne jaan la joo xam ne nii jaan ji daal day briller mu bëggoon daw mais jaan ji buusewul mu dem di ko jege di ko jege ba ñëw tiim jaan ji ndekete jaan ji jëmm jaan lañ ko defe mais ndekete or la or or lañ def jëmmu jaan fu mel ni yat bu taxaw xonko cur mu ne damay gént de jël tànk bi dóor ko ci jaan ji yënguwul ndekete or la or bañ buñ defaree jëmmi jànn mu xool gauche xool droite gisul kenn mu jël affaire bi bu jekk fexe fexe daal ba dugal ko ci mbuus dem këram toog nag di laaj ku di déglu ku laajte kenn laajtewul muy déglu déglu kenn laajtewul xam nga tekki na hmm. mu dem ci gën góor natte ko mu ne ko ah loolu de yàlla dinay faral di jëfanteek jaamam nu ko neex mu ne ko mais léegi nu may def mu ne ko xam nga nooy def mu ne mu ne ko dangay jël alal ji ndax yow la ko yàlla jox nga dem jaay or bi def ko monnaie waaye nag lenn ngay delloo jukkal sa borom da ngay tabax kër gu mag tudde ko këru gan hmm. ut ay gëléem ak i nag di rey di rendi bu fu aj jotatee nga rendi dalal gan yi teral leen ndax gani yàlla lañ loolu boo ko defee rek mel na ni fay nga yàlla kooku nag ci alal ju bari jooju la nekkoon am daraja ba convention bu ñuy signé rek këram la ñuy ñëw ndax ku fa ñëw dangay reer moo tax nga ji day bari sëriñ bi ne na ibn jad'ana naka abdullah ibn jad'an moomu kaana nekkoon na alxilfu waatoo bi manzilahoo nekkoon këram bi mat li ci yeex day nil yamaan yi borub xale boobu jóge yamaan munshi alkalimi loolu moo sosoon wax ji sëriñ bi nag di tëjee benn xew-xew boo xam ne nag bu yéeme la te d'ailleurs moo war a changer dundu yoon ci yàlla Muhammad ndax depuis bi mu amee huit ans ba nii mu amee vingt et un ans ci kër Abdullah ibn Jud'an na nga xam ne jirim la nag ndeysaan mu ngi majeur ci nekk ak papam papam bariwul barilewul mu nekk ak ay rakkam muy Ali muy Jaafar muy aqil muy talib ñoo ko benn kër yaayam di fatimatu bint asadin nga xam ne mooy tàntam di bàjjanam itam ci beneen wàll ndax góor gi asad bi ko jur euh, hashima ko jur euh, mu nekk nag ci kër ga fatimatu bëgg ko lool daan na wax ne lu muy jox ay doomam man lay njëkkee bala ñoo sangu man may sangu bala ñoo lekk may lekk Abdul Muttalib Abdul Abi seetlu na dara ci yonent bi mooy yonent bi ak lu mën a xew buy tëdd du sumbeeku seetlu na ci moom loolu daan na tëdd ci wetam itam ba guddi mu séen ko mu toog di tuñ yi di yëngu muy wax mel ni dafa am jëmm ju muy waxal ci biir lëndëm gi nee seetlu naa ci moom itam bu xale yi toogee di añ noonu xale di def di jiiroo moom damay gis moom day toog rek lu mën a lekk mu lekk ko bu jotul ci ñam bi arrêté mu woolu soxnaam ne ko nag Mouhamed nii ma ko gisee ci yaram bu ñu ko dul ber ci lekkam bootul dinañ ko gaaj ndax xale yi mën nañu jiiroo te moom mënul jiiroo loolu tax ñu mujj ko ber moom sallallahu alayhi wa ci añam ba mu demee nag ba am ñaar fukki at ak juróom doon waxambaane diggante boobu nag daan na fi dem di sàmmalu ay jur ci ay nit ñu koy fay lu mel ni soow ak yu mel noonu meew mi fekk yàlla moo ko jublu ci xikmaam pour mu sàmm bi mu amee vingt cinq ans nag bàyyam woo ko ne ko ah dafa am benn jigéen boo xam ne de wax dëgg yàlla euh, commerçante la am na alal te dafay wut ay xale yu góor yoo xam ne ni def leen liggéeyloo muy Xadijatu bintu Xuwaylid xadijatu bintu li dafa am jëkkër mu faatu bàyyi kook alal ju bari amaat beneen jëkkër tàggook moom mu jël ci moom alal ju bari alal jooju nag mu ne moom xadija du ko teg muy nelaw daf ciy def commerce muy jur comme moom jigéen la te yor ay doom kon du man di dem di jànkoon jànkoonteeg commerce boobu léegi muy jël ay xale yu góor di leen fay ñuy dem bu ñu ñëwee mu jox leen seen dix pour cent hmm. noonu la Xadija daan def ba yàgg nag mu soxloo benn waaju wóor ndax bari na ñuy dem di ñëw mais dina xam ne daal demewul noonu am ku ne ko boo jotoon ci Muhammad de al Amin defe naa li ngay jooy dina arrêté mu yónnee ci moom Abi wax ko ko mu nekk xaara bu ñëwee danaa ko wax Abi Talib woolu Muhammad ne ko ah léegi de yaa ngi jëm mag te sa papa dundatul sa yaay dundatul te manit mag laa bu fekkee daal mënoon nga gis ne dañ dem ci Xadija dina gën ngeen xool noo leen liggéeyee dana baax mu nekk amul solo man sa ndigal rek laay wéyee dem ci Xadija wax ak moom mu ne ko ah yow de bu dee yow rek lu may jox nit ñi ñaar lu may jox nit ñi ñaar dinaa la ko jox yow juróom ndax ñun xam nañ la ci sa yar sa teggin ak sa wóolute waaye li ma jaaxal mooy gëléem yi ma fi yoroon yëpp dafa dem ñoom jël nañu bu doon camion yi tey la wax camion yëpp yóbbu nañu charge gëléem yi dem nañu léegi da ngay xaar ba ñu dellu si bu ko defee ma jox la marchandise ak gëléem bu ko defee nga dem yeneen ci bi gestu ne que ah léema seen du gëléem mu ne ko déedéet gëléem gële kuyal gëléem la dafa soxora soxora soxor ba loolu tax ñu jéng ko fële moom mënul tukki mu ne ko man nag aw ma problème boo ma bàyyeeg moom danaa ko jël tukkeeg moom nga jox ma marchandise mu ne ko déggoo li ma la wax de bañu ma la jox mais kii day rey nit day mattaate gëlëm gi hmm. yonte yàlla Muhammad bàyyi ko fa waxatul ak moom hmm. ndax moom Xadija moo xamul waaye moom xam na boppam hmm. bàyyi ko fa nag dégmal gëlëm gi Xadija téere yi nee nañ dafa tiit ba dafa gestu xool wan ka gannaaw ngir bañ gis ni ko gëlëm gi war a def waaye xam nga boo gestoo ak biir déggoo dara dina gestuwaat hmm. bi mu gestuwaatee nee na mu ngi seen Muhammad tiim gëléem gi di ko ray gi jug topp ko ñu dégg mal Xadija mu ne jaadootul am na lu xew de hmm. bi mu ñëwee ba ci moom ne ko mu ne ka gi defu la dara mu ne ko yonent bi nekk man dama lewet moo tax lu ma gis rek bëgg ma Xadija jàppali muy jàpp xam ne li daal losigul mu jox ko nag marchandise ci gëléem googu nga xam ne dañ koo beroon ngir soxoraayam ko nekk ko nag demal Sham nga def sa commerce waaye ci saa si Xadija am xel oolu benn xale bu ñuy may sara ne ko yow kat dama la bëgg a fay pour nga àndal mag amin amin nii waaye yow lenn rek laa la bul jaay bul jënd yow toogal rek di ma ko seetaanal bu doon tey daal amel sa caméra caché rek di ko xool hmm. ah mu am ak moom dem Maysara moomu nag bi mu demee aller retour moom moo wax ne gis na ay kéemaan yu rëy rëy yoo xam ne mosu koo gis ci nit bu njëkk bi mooy dafa gis bi ñu génnee màkk euh, benn niir topp ko bu tollook moom nag Muhammad nga xam ne bu demee bu waaxoo niir bi waaxu bu taxawee mu taxaw topp ko Maysara nee na ma ànd ak moom gis niir bi timm man léeg-léeg ma jaabal sama fas wala sama gëléem ba romb ko moom nekk ci naaj bi bu ma defaatee demituur nekk ci ker gi ma xam ne kon niir bi dafa am lu muy dox Mouhamed ak a tax a jub muy benn ma gis itam bi ñu demee ba àgg Cham dafa ñëw digg bëccëg fekk dëkk bi yëpp fa tabarakallahu sunu xaaliqin mu ngi tàng ñëpp a ngi toog ci taatu garab yi di féexlu hmm. moom mu ñëw ci kersam gis ne taatu garab yëpp fees nag ay nit ñu ci toog mu dem ca naaj wa toog fa hmm. xam naa niir bi bàyyi ko niir bi bu dee ci biir dëkk bi daf koy siiwal ñu jekki-jekki nee na mu séen xobu euh, maanaam branche garab yi ñoo romb nit ña toogoon ca taat wa hmm. ñëw ba ci Muhammad tiimal ko tiimal ko boppam ña nekkoon ci garab gi nekk ci naaj moom mu ci ker gi xam nga loolu logiwul Maysara nee na ma xool nee na foofu ma yéemoo nag ci loolu pareegu ma ma jekki-jekki benn labbe naan di woote ci marché bi di woote ci marché bi ñu ne waaw kii kal la kii kal la ñu ne nastoor la mooy nastoor waaw nastoor mii la wax kii day tëju rek di jaamu yàlla ñu naan déglu leen li muy wax mu naan ma ne nabiyun jaa abil umami xaw ma lu xew waaye kooku toog yonent la <laughs> mu ngi mu ngi ci balcon de di yuuxu ñu naan lalla lalla lalla mu ne billahi kooku toog laa wax seen wet yonent la ñu ne ko lu tax mu ne ëkk googu mu toog yonent yàlla saa moo fa mujj toog hmm. boobu ba tey nag kenn mënu faa toog te daan na wax ne kuru yonent du fa toog kon nag xaw ma lu xew waaye kooku yonent la hmm. Maysara nee na maa ngi dégg hmm. yii la boole yóbbu Xadija yu mu ñëwee nekk Euh, bi mu ñëwee yonte yàlla Muhammad ñibbisi indi bénéfice bu ëpp bañ foogoon Xadija jox ko alal ju bari ne ko jërëjëf kontaan na mu dem ñibbi nag mu olu Maysara ne loo gis mu téye gémmiñ gi ne ay tànt li ma gis nettali ko nag yii Xadija nag ci la xam ne ki mu doon wër kon kii la ndax Xadija bokkoon na ci li mu gisoon dafa géntoon gis weer wi daanu ci poojam ñu bokkandoo sàngoodoo benn mbàjj mu dem wax ko doom baayam Waraqatu bnu Nawfal kooku nekk li nga génte bu dee dëgg yonent bi mujjee ñëw ci àdduna yow yaay doon soxnaam mu toogoon nag doon xaar loolu toog di xaar lool waaye yii mu gis daal dëgg-dëgg war naa daal xelam loolu la Cheikh Al Hadj Malick ci ñetti bayt yi dafa ne wa ama xamsin atu juróom wa ishrina ak ñaar fukk bi mu amee ñaar fukki at ak juróom muy vingt cinq ans moom yonent bi ar rujuu ci la delluwaat ila chamin ci cham xam nga demoon na fa ba mu amee douze ans ànd ak maamam ba bàyyi bàyyi toxam quinze ans après dellu na fa nag wala treize ans wa may suratun wa may suratun maysara fii xidmatil karami moo nekk ci service ku tedd ki muy yont yàlla muhammad di ko liggéeyal waaye ba mu demee ànd ak moom ra a gis na ajaayiba ay kiiman bokk na ci bu njëkk bi mooy irxaaul xusuuni lahu yooru branche garab yi la hu ñeel yonent bi hmm. baran banqaasu garab yi dañoo yooru di ko keral hmm. ak lan islaaluhu ak keralam fis ci daadil xarri ci taruk tàngaay bi bi rakami ci niir hmm. seen na daal niir bu ko tiim bu yonent bi waaxoo mu waaxu ànd ak moom bu taxawee mu taxaw ak moom maysara nee na gis na leneen xadisira ab ba sëpp na ilayhi ci moom raahibun benn labbe huwa Nassour la tudd Nassour moom nag Nassour mu ngi yuuxu ci marché bi ca Sham di yuuxu di yuuxu ñu ne ka lan la mu ne xaw ma lu xew waaye kii de nabiyun ab yonente la jaa abu dikk bil umami ci xeet wi hada huwa tawfiq lii mooy ñeenteelu atu yonent yàlla Muhammad ba ñaar fukki atam ak juróom hmm. faslu bii nag maa yustafaadu min li ñuy jariñoo ci faslu bi moo di xame nañ ci ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu góor war a jaar ci métit yonent bi jaar na ko xame nañ xame nañ ci itam lu nit war a dund ci coono yi liggéey yonent yàlla muhammad dund na ko nee na sàmm na def na def na commerce lépp lu góor di def def na ko tey nag daje na ak soxna si nga xam ne incha allah moo war a changer dundam hmm. muy sittuna xadija radiyallahu anha li ko war a jural itam ay doomam ba yow ba bésu tey jii muy ay sëtam ridwanullahi alayhim ajmain kon lii moom lañ doon jàng tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla fayal ñu yonent bi fayal ñu mam cheikh alhaj malik wasalaamu aleykum wa rahmatullah